sutura adkarahuma ci xol yi moo di xol bi ak xel mi ak jikko ji rafet am ci yal na nga defal ñu loolu moo nit niteem moo di rek ni ko alaaji siise waxee rek ci kutuba bi moo di xol bi moo di xel mi mooy jikko bi

ak ci xel mi ak ci jikko ji nga ragal yàlla nga bëgg yàlla nga yaakaar yàlla nga yaru nga am tegin nga teey nga def rafet ne jag na rafet ne jag na ak baax na ñëw song la ci adduna bi di àllaaxira yow yàlla ñaanal la Gwè oumi, gwè oum gwi nè la Nyon wè yon, repre taloko Gwè oumi, gwè oum nè la Djamano gwi, djamano nè la Doun luki, doun luki nè la Kon yon yon finè Yon yon yon wè kon ñu ngi lay ñaan nga rafetalal ñu suñu mbir ci àdduna ak àllaaxira yow yàlla nga defal ñu àdduna bu rafet àllaaxira bu rafet jànni àdduna ak jànni àllaaxira nga defal ko loolu loolu mooy mucc jaam ki nga ko defal jaam ñi nga yow yàlla ñaan nañu la ñu ñu doon jaam yooyu nga boole ñu ak jaam yooyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy kilifa bi te kilifa kilifa bu gën a njabootam yow yàlla So pou misopou yon enti li, ak lepou loun nou aran so pou, may nou misopou loun lale. Lepou loun nou nan, boko ati din yon, nan nan yon, lepou loun nou li deyi, ki di le di. Yal nan yon dey dey kon, nan nan kon san tane, yaw yaw, ah. ki ga san dey. Ameniye ouvia diape Ameniye pou ou flux Gennenyi andytan gen pya tou Sibayi resulou Solou speeding Mwenyep mwen seousil wy宮 nak chatmen mwen yon seleni den fati wote Mwen nyami melan wote Sen soumi mwen wote itol tanye Nhane mwen mwen... mu fekk yow noonu nga ko santaane lépp la nga tere nga musal ñu ci loolu wax wax ji jeex na jëf moo des yi dégg ngeen kutuba gi ñii alaaji Madi Siise li mu doon kutuba dégg ngeen ko moo di kenn ku ne yemal ci sa bopp yemal ci sa bopp nga yar ko nga yar sa bopp nga jël ko nga jël ko joxloo ko joxloo ko li yàlla santaane tere ko yàlla bañ yow yàlla ñu ngi lay ñaan nga yërëmuñu nga yërëmuñu yàlla defaral ñu. nga ñu. bu nga def ko ñu. ci sa ga. ak yonent bi. sallallahu nga dindi ñu ak yow. yàlla defal ñu yàlla koy defal kooku du jàdd ñu ngi lay ñaan bu ñu jàddadee bu bu ñu dem fu dul foofu ndax yow yàlla yow yaay kooku yow yaay foofu yow yaay loolu yow yaay noonu ba sa loola yëpp kon sa loola yëpp soxla nañu ko duggal ci biiram nga yërëmu ñu nga nangul ñu ko yàlla def fekk def nga loolu ñëpp ñu def fatiha ñaan ci borom bi mu defal ñu adduna bu rafet alaakira bu rafet bu alaakira ñu jàll ak borom bi bi fadlillahi wa karamillahi bi himdillahi wa ikhtiyarillahi wa ya rabbana wa ya rabbana ala nabiyyina muhammadin sallim